en tout cas ci suñu expérience euh, réew euh, à part Senghor à jiite na Sénégal 60 ba 80 yeewu bàyyi am dauphin am. Mhm. Senghor rek moo réussir créer un dauphin. Mhm. Diouf n'a pas réussi Abdoulaye Wade n'a pas réussi Macky Sall ne pourra le réussir parce que dauphinat dafa àndutul ak démocratie. Mhm. muy démocratie parti bi nga nekk muy coalition bi muy même gis-gis nit ñi defi naa dafa dafa euh, c'est une page tournée. ok maintenant il faut que Macky Sall soit intelligent mu il est intelligent ah c'est c'est un c'est un joueur politique comme tout le monde euh, intelligent mooy que comme ni nga ko waxee législative c'est une leçon. c'est-à-dire que ñi mu tegoon pour ñu def euh, diriger législative ak local c'était les hommes de Macky Sall il y avait des leaders de l'APR à la base ne ñun ànduñu ak ce choix Macky a eu l'intelligence de dire aux gens ben d'accord local surtout local allez compétition euh, allez en compétition moi je vous respecte okay. mais voilà moi ma liste yéen mën ngeen def seen liste parallèle am na sax ñi nga xam ne il les a bénis bien bon c'est la même chose pour la présidentielle loolu laa doon bëggoon wax ci les candidats qui sont des hommes d'État ñooñu suñu xasee ba jël seen responsabilité ne la ki nga tànn doy ñu suñu leen naree affronter vaut mieux nga nangul leen loolu vaut mieux parce que su Amadou Ba par exemple Amadou Ba mën na demal boppam ne yow ce bi nga def man ànduma ci mais je vois pas quelqu'un qui empêcherait Amadou Ba de faire la, la même chose que Macky a fait à Wade Abdoulaye Daouda c'est pareil il peut dire à Macky sal tànn nga Amadou Ba mais moi je ne suis pas d'accord damay dem seeti euh, les Sénégalais donc c'est des hommes d'État c'est-à-dire vaut mieux négocier ak ñoom nga am xel nee leen d'accordu leen d'accord mais vous êtes dans le parti vous êtes dans la coalition vous êtes dans la majorité man kii mooy suma candidat def leen lu leen neex dans le respect boobaa ku def lu la neex da ngay génn parti bi. non non non ça c'est pas intelligent. Hmm. gis nga la question de fond euh, je pense que c'est ça qui va être déterminant d'ailleurs pour Macky Sall. Macky ne veut jamais perdre une élection. Ah, <laughs> de bonne guerre hein? ah non il veut jamais perdre. donc c'est pas quelqu'un qui va choisir à la légère son candidat. je choisirai, il ira jusqu'au bout. Il la même dit, hein, il va être le directeur de campagne, qu'il va mener, il va mener une campagne personnelle pour que son candidat gagne. Donc, kooku su jëlee décision boobu dafa war a respecter ñeneen yi il faut qu'il accepte soo accepté wul rek tu vas créer par exemple implosion de l'APR à six mois d'une élection mais ils vont perdre c'est c'est clair un parti au pouvoir pendant dix ans nga nga dem dans six mois vous allez en trois blocs à une présidentielle il y a peu de chances que kenn ci yéen dem au second tour ah donc l'intelligence c'est de trouver le consensus c'est ça qui est intelligent mais à défaut d'un candidat une consensuel mais au moins accepter qu'il y ait une compétition euh, loolu su ko Macky defee je pense que mën na ci génn. pour compétition plurielle. plurielle. bon maintenant beneen question bi nga wax ça on l'a pour dit on l'a pas dit mais PS mu ngi ne euh, sel PS waxagul dara AFP waxul dara les partis de gauche guñ dara mais ces gen la ils vont pas ils vont pas être des des bénis oui pourtant ils l'ont été depuis euh, depuis le non, début. non mais ils attendent juste ils attendent juste que Macky Sall wax ku mu tànn ils ils attendent non.